tout ma ci bëgg a dugg ba au fond mais da ngay xool rek tey député tey député sax bu ñu nee war na am passeport diplomatique pour bu dire que ne dossier bi nu mu nuñ ko sacraliser ba tax na le député même tey bu fekkee ne dafay demande un passeport diplomatique du moom mooy dem directement ministère des affaires étrangères demander euh, passeport ah, diplomatique bi c'est-à-dire ci institution de la république yi am na ay am na ay chargé de protocole tey député bi nga xam si tey dafa bëgg un passeport diplomatique dafay jaar ci protocole assemblée nationale. Mm-hmm. rassembler dossier yëpp jébbal ko chef kii protocole bi nga xam si moom moo nekk assemblée nationale protocole bi ñooy jël dossier bi yóbbu ko au niveau du ministère des affaires étrangères pour vous dire encore que ne dossier bi nu mu nu mu nu mm-hmm. député bi buñ koy woo au niveau du ministère des affaires étrangères buy ñëw dafay ñëw ànd ak le chef de protocole ou bien benn ndaw bokk ci protocole assemblée nationale pour ñëw taxaw buy jël photo wala muy ñuy jël ay empreinte mhm. pour vous dire que ne dossier bi ni ñu ko sécuriser dafa doy waar. nekkul n'importe qui moo ko war a nekkul moo ko war a a am. Mhm. te bu bu ñu paree tamit yow boo jëlee say photo ñu jël say empreinte dossier bi bu génnaatee passeport bu génnaatee du ñu woo directement député bi jox ko ko dañuy woowaat protocole assemblée nationale. woowaat ko ba mu ñëw ñu jébbal ko passeport bi ne ko jébbalal euh, kii bi document bi. Mhm. le le le député. Mhm. chef de protocole bi moom mooy ñëw wala chargé de protocole bi à l' assemblée nationale mooy woo député bi ne ko sa passeport ngi nii wala sa passeport soxnaa ngi nii donc. boo xoolee affaire bi nu mu demee nii tey bañ ciy wax naan ay. Euh, député waa ay mariage yoo xam ne si tu ne peux même pas comprendre kon mm-hmm. donc euh, le mal est trop profond. Mm-hmm. Mm-hmm. le mal est trop profond donc fii dañuy profiter ci occasion bi lancer un appel au président de la république c'est le premier diplomate du Sénégal. mu jël affaire bi en main mu gere ko parce que comme ni nga wax sànq image du Sénégal mooy yàqu bitim réew. te Sénégal képp ku ko xam ci wàllum diplomatie. de de Senghor à Abdoulaye waat en passant par Abdou Diouf ñëpp dañu mës a respecter sur la chaîne internationale. Mm-hmm. ba tey bu ñu demee tey ba nga xam si ngay dem bitim réew ñu considérer le passeport diplomatique sénégalais ak benn passeport boo xam si rek mooy euh, amatul benn dayo nga xam ne kon donc tey jot na tey mm-hmm. ñu war a mën a toogaat mm-hmm. ressaisir waat saytuwaat mbir yi lépp ñu tegaat ko ci ci lu leer parce que bu dul loolu rek sunu image dana yàqu bitim réew. Mhm. te yaa ngi dégg agitation à l'extérieur ku ci mel ne Marie Le Pen ku ci mhm. mel euh, Éric. Euh, euh, Zemmour et tout ça ñu ngi agité. te loolu noonu mën na dem ba au niveau de l'Union européenne. te bul xam les conséquences en 2018 bul fàtte ne. Mhm. Sénégal bëggoon nañ ko def embargo. ci lu mel ni passeport affaire yu mel ni yu yu yëkkati woon affaire problème yi. ba Espagne moom moo ci opposé mais France bi nga si sax moom moo si moom sunu. colonie Donc on doit beaucoup faire attention par rapport à ces passeports diplomatiques-là mhm. qui symbolisent la nation sénégalaise. Très bien. donc tey bu ñu waxee passeport diplomatique ak ki nga xam ne xëñ na moom moom moo passeport bi. Mhm. dafa am benn immunité diplomatique boo xam ne daf koy daf koy daal mooy doon malaanu kiiraayam si on peut appeler ça ainsi. Euh, ñu ngi ko signé woon ci convention de Vienne je me rappelle plus mhm. en quelle année. donc tey est-ce que mën nañ jàpp ni Sénégal ak lan moo ko ci mën a gis nga euh, parce que euh, boo xoolee au niveau de la convention de Vienne mhm. dafa am 53 articles yoo xam si dafa tënk les relation diplomatiques. 53 mhm. articles yooyu lépp lu ñuy waxal on parle des missions euh, comment dirais-je de l' agent diplomatique bi nga xam ne si dafay jox dayoo ndaw réew. parce que gis nga tey boo xoolee tey un ambassadeur tey mu ñëw ci benn réew muy présente sa lettre de créance gis nga boo liiree lettre de créance bi sa yaram dafay daw. le chef de l'État bi nga xam si moo yónni ndaw soosu daf euh, daf koy wax ne ko kii nii nga jot lettre am lépp lu mu wax maa ko wax lépp lu mu wax rek man maa ko wax donc cela veut dire que ne euh, yow moomu tey nga yor passeport diplomatique boobu noonu yow ndaw réew nga mm-hmm. maanaam lépp loo fa def mu baax mu safaanu lépp loo fa def rek mm-hmm. image du Sénégal la. voilà donc moo tax euh, tey jii Euh, ci ci convention yooyu yëpp ñu teg ak suñu yeneen euh, euh, kii yi nawle yi nga xam si ñoom ñoo nekk bitim réew. Mhm. dafa war a am loo xam si ñun dañ ko sàmm dañ ko war a sàmmante. ba tax na du du du du càkk ne rek tey ji nga gis un ambassadeur dans un pays ñu ñëw woowee ko son excellence. Mhm. du ku nekk la ñuy woowee son excellence. te boo xoolee nit ñi sax dañuy def confusion foofu. parce que l' ambassadeur bi bi nekk euh, ñi nekk fii Sénégal ñi nga xam ne dañ leen accrédité ñu ñëw fii Sénégal ñooñu dañ leen di woowee son excellence. Mm-hmm. mais tey un ambassadeur sénégalais bu jógee bitim réew dellu siwaat fii ci réew mi dootul dégg son excellence monsieur l' ambassadeur lay dégg monsieur l' ambassadeur parce que on n'est jamais excellence chez soi. chez soi mm-hmm. ok mais ki nga xam ne si moom bitim réew la jógee ñëw représenté fi réew réewam. Mm-hmm. kooku mën na dégg son excellence parce que njiitu réew la représenté ci réew moom ba tax na loolu lépp convention de Vienne daf ko tënk pour protéger au moins le diplomate mënoon nañu wax ci sur la valise diplomatique mënoon nañu wax ci lu bëri li nga xam si tey kaaraange bi nga xam si tey la diplomate réewum daf ko koy euh, mbalaanu kiiraay boobu noonu ni ñu koy waxee lu mu am réewum jox ko ko dayoo bi mu am euh, loolu war day day wane màggaayu passeport diplomatique boobu noonu ñuy jox ndaw moomu noonu di représenter réew mi à comment dire à ba tax na Euh, conséquences yi ci mën a am kenn munu ko munu ko natt. Mhm. Momar wax na ko sànq ci kii ci chronique bi mu doon def. Mhm. mooy que ne euh, tey dafa toll foo nga xam si tey euh, passeport diplomatique yooyu tey mën na jural Sénégal jëye boo xam si tey ñu sax xam ab. Mhm. parce que dafay baax bu ñu tollee benn moment ci ci ci benn situation le président de la République mu rassurer au moins ñi nga xam ne si ñoom ñooy suñuy ñooñ. wax ak ñoom. xamal ne leen ne wan leen ne wala ay ndaw wan leen ne dossier bi ñu ko bàyyi mu jàll. dossier bi dinañ ko topp ba mu jeex takk. pour les rassurer tekk-tekkaaral jiital réew mi ah, ça n'a pas sa place parce que bon ñeen ñi mën nañ évoquer problème de euh, les lenteurs de la justice et cetera parce que mm. dangay gars yi ñuy def ay enquêtes et tout ça pour gën a xam dossier bi fu mu mm-hmm. kii. mais man li ma doon bëgg mooy que ne au moins les autorités compétentes ñu yëkkati kàddu wax ci pour dalal xelu ñi nga xam ne si ñoom ñëw nekk bitim réew parce que boo xoolee. lu lay wan ne mi ngi de mi ngi mi ngi mi ngi bëgg a graaw mhm. euh, France dafa jël ay dafa jël matukaayam mhm. parce que gis na ni fii ay passeport yoo xam ne ay ay yu ñuy def di ay falsification pour di pour di pour pour mën a yóbbu ay nit ñoo xam si des nationalités françaises mhm. ñu koy kii mooy nag mooy wane ne yéen bu ngeen jëlul mbir mi ngeen géral ko seen bopp ñun danañ am fullaay ju toll na ñun ñu géral ko suñu bopp te bis bu ñu demee nag balaa di toll fu nga xam si ñu danañ ko France ne ñu danaa am fullaay géral ko sama bopp bu boobaa day daal di ay conséquences yu néfaste pour le pour l'image du Sénégal. Très bien. et que actuellement l'image du Sénégal est vraiment entachée à l'international. donc je pense que ni loolu lu doy waar la loo xam ne xëy na moment pour rassurer justement population bi ak ñi nga xam ne ñoom la ñu sekk suñu naataangoo bitim réew bi faaw rek que justice soit faite et que ñu bañ am deux poids deux mesures. comme mm-hmm. niñ ko ñenn ñi commencé di waxee